ci laalewu ci liñ ko tudd turam daf ko metti moom juste xaritam la woon ak confident am la woon moo diggante moom Green. tey ak Jeyna aussi. aussi xaritam la woon. te ne ko yenn miinu mais. amoon nañ ay relations tey boo boo déggee coow boobu am tey déjà ci cadre Jeyna. cadre Jeyna ci ci xale bu mel noonu tey nga nekk koo xam da ngay coacher ay xale. Mm-hmm. ban ban ban ban réaction ngay am boo gisee coow yu mel ci xale ci xale boo xamante ne xëy na tey li may bu amoon encadrement bu baax léegi fii tey. Hmm. ok bon déjà euh, bon la première chose bu may wax maanaam tey dafa am affaire bu ma seetlu. Hmm. en fait ci information yi am souvent ci ci côté milieu. média bi showbiz bi ak yooyu noonu. Hmm. en fait euh, souvent dafay am ay coow yoo xamante ne day juddu. da si dama siy gis ñuy commenter. mais souvent du maîtriser en fait. di nekk ci biir di nekk ci biir voilà mm-hmm. donc c'est très difficile mm-hmm. de faire des jugements mm-hmm. des fois nag gis on peut analyser les situations par exemple nit dafa benn affaire nga ne ah diw lu mu def baaxul mais c'est très dangereux de dire diw dafa bon diw dafa ñàkk jom diw dafa lii man franchement man mun naa ne je suis le plus imparfait ci commun des mortels yëpp donc man bu nu mënee dama war a mën a joxe yenn jugement. Mhm. xam nga parce que tey j'ai des défauts. waaye toog j'ai des défauts. Mhm. nit def dara ma koy xas. wala mhm. dara quoi alors que man sama bopp je sais que peut-être je donc euh, lenn rek laa mën a wax maanaam tey euh, yal na yàlla doon sutura un. deuxième chose. Euh, yàlla teg ñu ci yoon bu baax quoi. que c'est vrai ay xale ay ay xale lañu. jeune âge la connais nii. minante bu baax mais on se connaît on se nii. nit ku nit koo xamante ne liggéey ñaar ci série wala dara non non non non suñu suñu liggéey mm-hmm. mais euh, koo xamante ne am na carrière mm-hmm. man pour man euh, lenn rek la quoi euh, nañ ko ñaanal juste rek wala ñu aider ko mm-hmm. xale la ko ñu aider ko pour mu jéem a aller de l'avant je sais pas nag ñan ñoo war a jël responsabilité boobu noonu pour mu aller de l'avant quoi par rapport ak Mansour boobu man je n'ai pas l'information man koy soog a yëg a ah, dégguma si dara même la publication là j'ai pas vu. Mhm. bon mais xaw moo tax je ne peux pas trop avancer si. Mhm. parce que xaw ma lu xew je maîtrise pas carrément la situation. Mhm. quoi parce que bu ñu déggee c'est quelque chose de. waaye bu ñu déggee tey. Marichou rek suñu xel dafay dem ko dal rek dañ ni am na ñenn affinité or mi sax li nga xam ne moom mooy liggéey bi. Mhm. ministère bi ngeen bokk. Mhm. Euh, je pense que comme yow ni mu war a demee ci côté moom it ni mu war a demee sa côté. tey moom su déggoon dara ñu koy ñu lay tudd ci yooya moom dana am sentiment bu muy am. idem que tey euh, ni nga xëyee gis information bi ñu koy tudd ci yëf. Mhm. pot lan mooy sentiment ban sentiment la ci am. oui oui cest à que moom euh, moom laa c'est-à-dire bon Marichou je la connais très bien nekk na jigéen boo xamante ne leen moom laa ko xamal. ñëw tournage ñibbi këram toog si wetu yaayam liggéey nekk si liggéeyam quoi. te ñu ko dégg si lu bari. très franchement soo leen seetloo bu baax te yàlla su nañ ci loolu noonu. Mhm. donc euh, duñ koy dégg si yenn coow yi donc elle est très très très concentrée elle est très maison. liggéeyam mhm. donc euh, tey jii nii. Euh, su ma déggee juste benn information bu xew ni boobu j'attends peut de voir sa version mm-hmm. lu mu wax ba pare pour xam lan mooy lan la si confirmer quoi mm-hmm. mais franchement ci moom moom moom xam naa ne daal fulla ak fayda mm-hmm. daf liggéeyam toog këram loolu laa ko xamee quoi franchement sax ci élément yi nekk muy acteur actrice yi nekk ci biir Marodi c'est très rare ñu leen di gis ñuy def ay sorties médiatiques lan moo waral lool c'est pour les protéger wala pour éviter ñuy def yenn bourde en communication lan moo waral loolu. effectivement bon soo xoolee ba ci ñëpp ah tey jii nii euh, wax yomb. journaliste yu bari nee nañ waa Marodi bëgguñu wax ak kenn te bu ñu génn <laughs> seen série euh, xam nga ñu gars yi di leen communiqué non xam ngeen dafa am benn affaire. Mhm. Euh, je sais pas si vous ma souvenez lors des manifestations. en mars. gars yi dañu jékki-jékki ñu ne la moo tax acteurs yi génnuñu. Mhm. acteurs yi surtout nag acteurs la moo tax génnuñu wax. mais mais tey da nga gis benn acteur. jékki-jékki mu juum wax benn affaire. Mhm. wala ñu waxal ko benn affaire. Mhm. nit ñëpp dal ko. Mhm. di ko critiquer. da nga gis nit koo xam ne def benn publication bi wala mu juum ci benn wax. nit ñëpp dal ko. donc dafa tax ba nga xam ne léegi acteurs dañu tiit. duñu sax dañuy ragal a wax. xam nga bés bu c'est vrai. Euh, maison bi moom tey acteurs yu bëri leen di wax avant ngeen génn il faut que ngeen am autorisation kii bi parce que bëgg nañ xam ci lan ngeen di wax. tey fekk maison bi la demal communiquer fii. mais tey da ngeen dem ba nga xamante ni nit ki sax ñoom soxlatuñu sax euh, di laajte autorisation mais ñoom seen bopp ñooy ragal. pourquoi parce que des gens ñooy xaw a tiitalaate sur les réseaux. Ah, am na si ñoo xamante ne mentalement ils sont forts. waaw y a d'autres qui sont faibles te mën mm-hmm. donc tey après su ba nga xamante ne peut-être soxla ngeen fu acteurs yi war a waxee. Mm-hmm. maanaam situation euh, émotive yi amoon. Mm-hmm. soxla nañ acteurs yi wax mais acteurs yi ragal nañu wax. Mhm. donc loolu moo doon expliquer seen mutisme surtout sensibilité population bi. voilà exactement dañuy ragal wax. benn instant dañuy gis sax kenn ku ni yii tam moo wax fii nii ñu ne ma lii. waaye bien sûr am fu ñu la féetale quoi. voilà mi ngi mhm. noonu mais parce que les gens dañu gaaw si jugement. Mhm. mais am na am na ku ma envoyé message léegi par rapport ak euh, Dieyna euh, nee na Adama mës na boole Dieyna ak Pod pour benn série est-ce que c'est vrai <laughs> pour pour benn série quoi boo ko waroon jël nga ne di nga ko woo après. non en fait euh, li muy wax bon en fait Adama dafa ma woo wax ma ne ma Dieyna bon buggoon na jouer et xam nga après après mënuma mënuma mënuma euh, pourquoi pas nga jël ko ci sa série yi quoi. ok ma ne ko ok d' accord amul benn problème suñ ko soxlawee ko woo. loolu rek loolu moo tax. ok donc voilà mais yaa doon xalaatal comme li la Adama proposé woon quoi. pour mu ñëw ci série bi. man képp ku ma gis mm-hmm. su may dox nii képp ku ma gis sax maa ngi xalaat laa ko war a mun juréeloo même Macky Sall dafaa damay toog ma ne su ma soxla woon tas yi dinaa jëm lijjanti bu mu juréel ma <laughs> loo ko juréeloo non non ma ko de képp ku ma gis mm. waaw mais bien sûr mm-hmm. pourquoi pas képp ku ma gis man képp ku ma gis mm-hmm. lu may njëkk xool kii lan la ma war a mun jouer après nag ça dépend nag maintenant ci euh, production yi ci caa ci production yi est-ce que nekkul Pod aussi coow li nga xam ne Dieyna am na ko nii tey di nga ko